fukki fan ci euh, mille neuf cent vingt neuf ci weeru novembre lañu ñu sartal këyit bi nga xamante ne moom mooy wax ci aar àq ak yelleefu xale ci àdduna bi yëpp. ci ay fànn yu ci mel ni euh, wàllu aada ak cosaan ak lu ci mel ni koom-koom lu ci mel ni wàllu politique mu nekk ay mbir yoo xamante ne mënut a ñàkk ci xale bi ci màggaayam. ci màggaayu xelam ak ci màggaayu yaramam sunu réew di Sénégal bokk na ci réew yi nga xamante ne ñoom ñoom njëkk a nangu dogal googu ci loolu la ONG bu ñuy wax ter des Hommes Suisse ak ay partenaire am jël li nga xamante ne moom mooy article 13 bu convention boobu mooy charte bi ñu tëral pour aar ak ak yelleefu xale te article bi di wax ne xale bu nekk am na droit ci liberté maanaam moom boppam wax ay xalaatam génne xalaatam ci fànn bu mu munti nekk ci loolu terre des hommes ci atub 2018 la tëral benn conseil mébét yi nga xamante ne nag moom la conseil bi am mooy dooleel li nga xamante ne moom mooy taxawaayu jeunes yi maanaam ndaw yi ci aar àq ak yelleefu xale bokk na ci yooyu mooy taxaw ci aar doomu aadama yi ci li nga xamante ne moom mooy jàngoro yi coronavirus bi waaye tamit ñaax leen ci jëfandikoo bi nga xamante ne ñu ngi koy jëfandikoo xale yi bokk na ci ba tey tamit ñaax ñi nga xamante ne ñoom ñooy waajur yi ak nguur gi ak képp koo xamante ne dafay liggéey ci wàllu état civil dimbale xale yi ba ñuy teel a jot ci seen état civil te bañ ci bañ di ci am benn problème bokk na ci tamit ñaax ba tey Euh, ci jëlee bi nga xamante ne war nañ ko jëlee xalé yi ci mbéd mi parce que ñun ñëpp xam nañ né xalé mbéd du place am moy bërebu jangukaay ya ñu organiser itam ay waxtaan ci bërebu taskatu xibaari waye waaye loolu nekk ci ay thèmes yo xamantene da fay wax ba tay ci lu jëmele kanam ak ak fu xalé pour ñu gën ko respecter ñu rë ñu seetlu ne ba tey xalé yi ak violence yi nga xamantene ñu ngi leen koy tek ba légui mu ngi wëy di am ci loolu ñu yëkkati ay kàddu jëmale ko ci nguurub Sénégal di ko wax ne nañu fexe ba jëfandikoo xarala yu yees yi ba nga xam ne état civil dootul mën a amati problème ci diwaanu ci biir Sénégal pour permettre xale yi ñu bañ di am benn problème ci problème état civil ñu gën a taxawalaat tamit euh, euh, pencub ndawu xale yi waaye tamit ñu continuer plan d'action bi ñu jëloon ci génne xale yi ci li nga xamante ne moom mooy mbedd mi ñu baral jéego yi itam ci tëgg benn projet bi nga xamante ne dañu waxoon ne dañuy moderniser daara yi loolu tamit ñu baral ci seeni seeni jéego ñu fexe tamit ba xale yi nga xamante ne amuñu chance dugg école wala sax dañu génn école peut-être dañ leen fa dàq wala leen ñu fexe ba dugalaat leen ci li nga xamante ne moom mooy formation professionnelle yi ndax ñu mën a am ñoom it ci loo xamante ne dañ ciy jàpp